fi ñuy dugal mooy tey procès bi jox nañ kii droit am jox nañ kii droit am xam nga le président Sonko effectivement il l'a di le président Sonko avait dit que effectivement na procès am. Mhm. te procès bi ci ni mu gën a gaawee te buñ ko rey ñu ko def dara. parce que au mois où il le disait. Euh, procès équitable vide, Je, le également parce que ça peut être quatre cent et quelques ça peut de la littérature ah attention maintenant euh, loolu yëpp ba mu ko waxee parce que lui. man ci li ma jàpp il avait pensé que ces droits ne devraient pas être bafoués parce que quand un procès équitable c'est conventionnel et constitutionnel ça a valeur conventionnelle et constitutionnelle tey jii réew mi euh, bépp justiciable war nga mën a am droit à un procès équitable mais tey une violation manifeste de ses droits bokk na ci rek exemple bi ma lay jox mooy que ne il doit recevoir sa convocation en bonne et due forme et le juge doit s'assurer qu'il a eu connaissance. l'a reçu il l'a reçu l'a pas reçu. parole contre parole. man jàpp naa ne pas Moussa Sow sànq il a confirmé. parole contre man jàpp naa ne. au-delà de cette convocation la lui mën na jàpp ne sax il n'est en insécurité totale bu fekkee ne mi ngi ñëw di wuyu si hmm. Ousmane Sonko il n'est pas n'importe quel dans pays. maintenant il faut le dire maintenant bu fekkee ne. qui doit se charger d'assurer la sécurité je termine je termine sànq tamit dama laa déglu. c'est une question no non non non non non s'il te plaît. déglu ma ma terminer s'il te plaît a vu Fouta ou bien au Fouta ànd ak ay nervi moom qui est le chef suprême des forces armées war a assurer ñun suñu sécurité bu demee ba ànd ak ay nervi ça c'est autre chose moo tax waxuma ci sa wax je parle par rapport à ce procès dama ne. le président Sonko avait voulu qu'il y ait procès avait voulu que toutes les parties prenantes yàlla may leen wër ba ñu yegg si ñu def procès mais un procès équitable mhm. qui respecte ses droits mhm. mais lu ku gis le processus xam ne ses droits sont manifestement violés mhm. tey Sonko mënta gé bu nekkee ci kër góor gi pour mu génn këram rek problème la on est dans quel pays pour mu dem wuy minimum il fait deux heures ou quatre heures pour mu dem wuyu sa sécurité ainsi de suite parfois ñu jël ko dugal ko bërki démb ba mu jugee procès récemment moom ak président Gakou la ñu dugalandoo ci ci ci ci camionnette bi dem wàcce ji biir këram.